السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك سنغال ما ينب ما يمكن جيدة نيو يمبوك جولي أنا وسنة سنة بوك سالبي مطلان باتم سنة بلاد موانيو اللي وقتانا جيرنا أنكار جو جات موبوغونا يكت جيرنا يبوك مو يريمي لما يوحنا bàyyiwuma ci kenn ñëpp laa ci maas wax mooy Sénégal daal adduna bépp xam nañ ne réewu jàmm la te ci jàmm lañuy dox ak teraanga ah réew mi de bari nañu jaaxle lool bari ñu tiit ak ñu jaaxle waaye nag dal war naa mën a am nekk daal mooy. réew mi daal mel na ni soppiku am na ci إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لولا القرآن الله ويو بغي دار صبب من سنبب من يكيد بيت من يباري بيت آه إذي ما يوحد di wax te yàlla tax maa ngi koy tàmbalee ci ki jiite réew mi ba ci ñuy gën a suufe di ko bàyyi loo xel ni Senghor de moom mi tàggoo ci kilifa diine yi mu ñëw Tuubaa la mu wax ak Cheikh Abdoulaye ak la mu ko tontu la ci gën a am solo mooy loolu yooyu mu santee benn war nga doon sant fukk Ah, ah, e dañoo la fal te buñ deful toon doo fal buñ la war nit liggéey du yegg kon buñ la santee benn war nga leen sant fukk kon yow mi jiite réew mi wax jooju yaa ko moom ndax jiite réew rek la ko wax la ko dalee ci sama war nag ba fii nga toll nii ah xawma lu mën a xew de waaye ñi nga wutuma bàyyi nañu jàmm te buñ sañoon da nekk ñu ci jàmm te bàyyi nag jàmm am jàmm ndax loolu jàmm kat jàmm ko gën mbooleem réew mi di kilifa diine yi yëpp maa ngi ci ànd ak yow jàppale la di la ñaanal xam ne yow la fi yàlla te doomu aadama dafa war nangu dogalu yàlla bi yàlla dogalee nga yor réew nag ba suñ doon jii at yi ñu weesu de wax dëgg yàlla ba ci at mii ñu nekk coow li bari lool jàppal bàyyi la werante weddante te loolu de yoon la wax ne fa mu jëm mu faa gàddu baax nag ku ci am bànk ñooy ñaan nga dal ak ku la a jege ak ku la mën a xalaatal yàlla defal na am xel moo xam ne ji nga jaar ba jiite réew mi doomu aadama yi yow rek la ñuy déglu ak fu ñu mën a ne tey ay sénégalais kon dalal seen xel ak dox ci tànk jàmm jàmm kat des koy wax di ko jëf